si Afrique boobu rek euh, la ñuy des honorable euh, parce que gis nga événement yi nga xamante ni moom moo am ca Côte d'Ivoire euh, Alassane Dramane Ouattara déclaré na candidat troisième fois alors ca Guinée gis nga coow laa ngi noonu nit ñaa ngi wàcc si mbedd mi gis nga crise bi nga xamante ni moom moo am Mali gis nga ca Mauritanie alors tey crise leadership bi ngay wax tout à l'heure ak boole ci li nga xamante ni moom moo nekk problème troisième mandat kii noo ko gisee noo ko jàngatee. exactement non yooyu nag euh, maa ngi koy observer. parce que mënee su cee loolu mënu ko ñu ko waxtaan ci benn réponse euh, maa ngi observer situation bi. maa ngi waajal euh, ay ay bind ak yooyu communiquer daal. mais fi mu ne pare guma loolu. bu paree dinaa communiquer. mais mais jàppoo ne loolu loolu luy luy luy mën a ñëw si Sénégal la. waaw yëpp. dinañ ko dinaa ci dinaa ci bind wax ci li ma ci xam. bon Sénégal euh, ki fi nekk wax na waxaat waxaat waxaat ne mënuma ko euh, saa yi ma masaan laaj itam dama naan amul luñ ciy teg. Hmm. mais dinaa maa ngi maa ngi bind parce que maa ngi suivre situation yi euh, affaire bi du. trois minutes nga ci mën a wax daal dinaa ci dinaa ci wax incha allah. bokkoo si ñuy wax ne euh, président Macky Sall dafa war a génn une bonne fois. non non non vraiment wax ne leen exactement dinaa def wala du ma def. nañu yemale foofu xam nga. Hmm. wax na wax na du def wax na mënuma ko wax na du def wax na mënuma ko. Hmm. ñiy ànd ak moom wax nañ ko. Hmm. ba pare ñu continuer naan waxal amatul benn njëriñ. jàppoo mu leer benn yoon si bokk askan mu nu muy leeree. ku nekk xam fi ngay teg sa tànk ah, eh, bu bu génnee ne du ma def. c'est-à-dire bokkuma troisième mandat du ma ko def. mu leer si bopp waxu wax na ko waxu ko loolu déggoo ko. boo demee ci internet doo ko ca fekk. même ñun biñ ko mujjee déglu dafa ne je ne tiire pas nii wii du ma wax euh, nee naa la. Hmm. Euh, maa ngi réfléchir ci affaire yi. Hmm. bu jotee dinaa ci wax waaye nag. Hmm. Eh, ku la ne mënuma ko mhm. duma ko def wax ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon ñi ko wër ku ne ne la mënu ko mhm. du ko def te boo demee ci internet fekk ko ca nga ne da ca ko di ci waxaat feeg ñeenti at man li mu wax laa jàpp aw ma lu ma ciy teg nii wii nii bi mu wax tamit aw ma lu ma ciy teg Ce que je je dire. que alors si vous avez la constitution bi euh, wax nañ article non alors vraiment Je suis vais may ma xalaat ce ma la wax. Mhm. bu ma wax ak sénégalais yi. Mhm. ak sama africain yi mhm. ma

<laughs> il faut ñu mais attends 1960 ba ñuy am indépendance est-ce que li xew maa li xewoon na fa ay gars yoo xam dañuy jubbi ci jàkka rey fa fanweeri nit gaañ téeméeri nit loolu amoon na fa 1960. Hmm. kon ñooñu dañu dem dañu jëm kanam wala dañu dellu ginnaaw li xew euh, Côte d'Ivoire ay junni junniy nit 2010 la 11 xaw ma la xew Guinée. Hmm. ak feneen ak feneen. at lii di ñëw te kenn xamut nu mu nar a deme yooyu saawaay dañoo war a toog xool ko